Aïcha la sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi safo El Vision Média man si sa Eva nag maa ngi fii ci Pikine Icotaf ñu fekk fi koo xamante ne yaakaar naa kenn dootu ko présenté ci milieu art bi ndax artiste la euh, muy monsieur El Hadj Thiam sëñ bi nuyu naa la. awa maa ngi lay fay. waaw monsieur El Hadj tey El Vision dafa ñëwoon seet si la dañ lay daal di bàyyi rek nga daal di nuyoo euh, ñi nga xam ne dañuy safo El Vision Média. waaw maa ngi nuyu waa El Vision Média yëpp maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. di nuyu seen njiit ki ne ci bopp bi di El Hadj mm-hmm. sama xarit sama lépp maa ngi koy bu baax di def lu tamit liggéey bi ngeen di liggéey. Mm-hmm. ok. <laughs> waaw ok waa euh, euh, monsieur Thiam tey Elvision dafa ñëwoon seet si la parce que dañu gis ne instant bi da nga raar ci milieu euh, bii di milieu théâtre bi. Mm-hmm. parce que dañ la daan gis bu njëkk ci série yi ngay joué lu ci mel ne dina ba neex lu ci mel ne Abu Bilal ak koor gi lu ci mel ne Njaayeen Bombe ak li nga xamante ne mooy riiru tribunal te gisatuñ la ci millier bi lu lu waral loolu. wa mais xam nga tamit euh, liggéey bi des ñom dañuy soxla ce personnage ñu woo la ma lañ may wax léegi daal léegi lay di faal président Arco Banlieue ma ngi koy nuyu euh nuyu artiste comédien yëpp lu sepp liy defal moom woné ma le soxla na la ma dem tournel ko ñëwaat des fois ñu moom feneen ma dem tourné ñëwaat mais abou bilal mom euh dañ ma doom wo ma bok ci scénario bu baax mais léeg li sey liggéey dina la xawa galancor ak tamit yenen yenen tournage yi ba tax na yeneen série do ci mën di participer mais téwul maa ngi ci télé bi de. Mm. ba léegi ma ba léegi ba léegi bàyyi ma bàyyi ma maa ci terrain bi de. Mm-hmm. maa ngi koy ñàkkante bu baax. ok yaa ngi koy ñàkkante bu baax a baax mais léegi gisatuñ la ci série yooyu nga xamante ne daan na feeñ ci euh, euh, petit écran yi bi nga xam ne moom mooy euh, yu yu Sénégal yi mais gisatuñ la ci bëgg naa xam ba xam tamit sa troupe théâtrale bi nga xam ne yor nga ko. ba xam mu ngi fonctionné wala fonctionné tout ba xam yow yaa ngi ci yeneen projet yoo xamante ne ci mel ne bind ay téléfilm ay série parce que léegi dama gis ne yéen yi nga xamante ne day ci arko yi ngeen nekk mhm. ñu ci bari léegi ay scénariste lañ dañuy propre dañoo organiser seen propre troupe mhm. bind ay série di ko mhm. yóbbu ci télé yi ñu di leen ko tegal ba xam yow monsieur Thiam yow yaa ngi ci loolu wala nekkoo ci waaw yooyu yëpp maa ngi ci télé sax boo xoolee rarement noonu quoi xëy na liggéey naa yoo xam ne xëy na ci kanam tuuti incha allah bi dinañ fu mel ne ay TFM wala Sen TV am na joo xam ne jot naa ko liggéey yoo xamante ni xam naa bi bientôt yàggatul. Mm-hmm. di dama gis écran bi di wax sama fans yi nag dina xam ni caam mi ngi ci kanam mi ngi ñëw. Mm-hmm. yor naa troupe nag troupe Daare Daaru Salaam maa ngi ko yoroon mais troupe bi. Mm-hmm. boo xool lu mat 6 ans nii dama arrêté woon quoi nekkoon ci ay bagages yu ma doon liggéeyante parce que tamit troupe boo ko yoree. dafa am ay papiers yoo xam ne da ko a am. yu mel ne ay euh, dafa am euh, club bi dafa am ay kayit yoo xam ne si moo lay permettre nga mën a dem BSDA ak dafa am compte yooyu yëpp ci laa nekkoon liggéey mais yàlla dogal na yooyu yëpp euh, sotti na aussi am na benn am na ñaari film yoo xam ne liggéey nañu ko xam naa ni bientôt fii incha allah rabbi euh, dina génn mais pour l'instant troupe bi moom dama ko arrêté woon maa ngi liggéey ak benn troupe bu tudd pionnier bu nekk fii ci Pikine seen président nekk Pape Sène moo nekkoon communauté moo ne moo yoroon wàllu organisation bi ak ko banlieue actuellement nii man maa ngi liggéey ak moom tur boobu laa nekk di liggéey ak moom mais teewul sama tur dama ko bàyyi mu nekk standby ba ba maanaam projet yi ma laal dem ba taxaw xam ne bu ñu jugaatee dañuy liggéey mhm. mais teewul ñu ngi def ay petits réunions euh, koy def quoi mhm. parce que artiste moom gars yi ñoom boo nekkatul rek des fois dama dajeg nit mu ne waa càmm mhm. da nga bàyyi da nga bàyyi aar bi léegi mais non bàyyiwuma xam nga rek des fois di tol xam nga def standby nga xool fi nga jógee ak fi nga jëm diggante bi ndax avancé nga wala avancé woo nga xoolaat selon li nga jot a liggéey euh, la nga war a yokk ak la nga war a wàññi. Mhm. loolu da ciy baax quoi. Mhm. monsieur Thiam bëgg naa tamit nga ñëwal ma tuuti ci sa relation ak artistes yi parce que dama gis na yéen mhm. yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk ci milieu art bi di di comédie bi en général juboo woo leen liggéeyante bi nekk ci seen biir ba xam yow am nga relation bu concrète ak euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci milieu art waaw loolu moom booy xool ci milieu yëpp la ci milieu yëpp la moo xam ndax ci danse bi wala ci way bi wala ci culture bi maanaam foo dem rek yooyu du fa ñàkk quoi kaa yi mel du fa ñàkk. Mhm. parce que tamit des fois da nga nit koo xam ne suñu borom moo ko dara jaale. Mhm. Euh, nit njiit sàkkul boo xam suñu borom mooy sàkk nit des nit day ram mhm. des fois nit day ram di ram ba nekk ca kaw. ba ñep commencé koo gis am ñoo xam ne dañuy dañuy soxor ci euh daaw jeet rek euh, defa naa benn film bo xam ne bay xol léegi boobaak léegi def na 6 ans. film bi tuddi tudd Isono ak bi ma ko ba pare. ki mako ko tourner tourné mu ma kaset bi da rerre man nekk ci def def def ñu tourné ko jox ko ko. mu toog deux ans yoo xam ne tourné wu ko. man daal dama toog benn jour rek ma artiste woo ma ne ma sa film bi am na ñenn ñu ko tourné. ma xool mais kaset bi réer kaset bi réeroon lépp lañ tourné waat bi bi réeroon pare départ scénario bi. te man damaa BSDA naa ko. pourtant mënoon naa dem police porte plainte dem BSDA su boobaa ñoom mën nañu am problème mais dama xam ni seen xel moo toll foofu rek. parce que chaque jour nit def nit bu xalaatee dara ba war koo liggéey nga xam ne lii idée da nga ko war a bàyyi ak moom. artiste dama bëgg ñu ku nekk gëm sa bopp. festival sax léegi da ngeen da ngeen ci festival mais da ngay gis yenn bu mag boo xam ne da nga daa dégg ci yu ne. mais boo dajee moom festival après da nga naan non kii ki ma doon gis ci écran bi est ce que kii la quoi parce que ñun ñun nee na ñun ñooy yeete. kon kuy yeete fu dañoo war a gis ci yow bon exemple. xool nga xool ku ci mën Ibrahima na ñoo xamante ne si ay référence nañ ci art mais aar dafa am ñoo xam ne dañ cee dugg ngir siiw am ñoo xam ne dañ cee dugg ngir lan ci kon lañuy nekk nga ne sa waaye demal defi aar yaa ngi toj fii nangam nangam alors que boo demee bu mm-hmm. bi nekk nii ñun dañ ko jàppee liggéey mm-hmm. man nag li ma gën a bàyyi ci aar bi mooy Serigne Bara Mbacké yàlla ko suñu borom xaare àjjana te yokku leeram daal ci barkeem mm-hmm. benn soxnaa moom yóbbu ba ci moom mu toog ñaanal ma am lu ma wax nag ne ma tout le temps dina baax te kooku soxna soosu ci aar la ma xamee mu ne ma yooyu yaay sama fans ma dem tëjoo bis boobu tëjoon nag alaaji baara lu mat une temps barki alxuraan ñu toog nii waxtaan lu bari mais sama soxla yi waxuma ko si may dem yu bari woon naa projet yu ko wax lii dinaa ko wax lii dinaa ko wax lii mais ma àggee si si guma bët sax pour xool ko pour wax ak moom ku ci mën ne sama sëriñ sëriñ xaadim loo bi ma am na ma ko mu ko seetaanee après mu am lu ma wax mu xamal ma ni ginnaaw luy liggéey la kon ah, nekk leen ci quoi nekk leen ci aussi tamit ñun mbàkke mbàkke dañuy woo des fois naan ñu gis ci nangam def leen nii nangam nangam mais milieu artiste bu bëri ñoo xam ne ñoo soxor gis nga nit nekk lépp looy lu sa morom nekk da nga ko ko yéene ndax boo nekkee di ci aar bi nga def un an demoo xootal yow fi nga toll ci aar bi aar foo ko toll foofu la lay toll souvent lay defal bu nekkee verbal da koy wax ba suñu imam bi aaju bi ñuy jiite bi ñuy julli mu ne boo bëggee xam fa la suñu borom toll xoolal yow ko toll mais aar moom loolu moom mi ngi moom yaakaar naa moom bu baax gars yi seen lépp sëriñ la ah, maanaam sama si loxo lu yàlla dogal rek noonu la. incha allah man loolu la jàpp. waaw ci aar bi ngay laay des ba léegi tamit dafa mel ne yéen état bi daf leen doya dal parce que tamit euh, yéen ñi nga xamante ne da ngeen di jouer théâtre nekk mhm. ci milieu. Euh, théâtral bi mhm. dama gis ne parfois da ngeen di def ay manifestation di def lu melni ay festival mhm. mais état bi dafa melni mom du ci teg loxom mhm. par rapport ak ñeneen yi nga xamne dañu ngi dund ci yeneen art parce que art dafa yaatu ñi nga xamne dañuy peindre ak yeneen ak yeneen ñom lañu gëna kiyel parce que da ngay gis en général ko xamantene da ci doon théâtre dem ba euh, feebar pour mu am ay moyens yo xamantene sax da kay fajo day xawa metti dal parce que état bi mu ngi leen di topato wala wu leen état bi moom mën naa ni reconnaître artiste comédien yi parce que booy xool euh, ministre de la culture bi fi nekk. man Modou Bousso ay jamono. dama koo soppan parce que dañ dafa doon liggéey ak artiste bu baax a baax. parce que booy xool festival yi dañoo dee fi mu toll nii. xool riir festival bi bu Kaolack bu bu bu Gadal bi. toog na lu mat 4 amut. alors que état du ko seetaan. te réew mënut a dem sans culture. parce que culture bu amee rek. ci la ñuy wan nit ñi réew mi nan la a doxee ak normes war a doxee. festival yi ñu gars yi def lañ ko dañ ko continuer mais fi toll nii ñaari festival ñooy ñooy dox ci dëkk bi ci Sénégal ñaari festival ñoo fay dox carrément à part Keppaaru Maam festival Thiès Keppaaru Maam bu tëggeet bi Ibrahima Mbaye Sopé à part moom euh, euh, festival bu Thiès bi sinon festival yëpp dee nañ man nag xaaruma état man état day liggéey may liggéey su ma demee nga xam ñu xam ne daje nañ waaw mais pour dem xaar état parce que état boo ko dee xaar doo dem chaque jour rek yow nekk ci yoon parce que ku nekk ci yoon bi moo te moo neex yóbbaale ndigal dafa fekk loxo borom des fois nag am ñu ma woo am ñi ma woo ne ma dañoo bëgg nga indi ñu mbooloo après ñu wax ne nangam lu ma dox ci loolu ma sama liggéey lan la askan bi laa fi nekkal aussi tamit dama waatoon ne du ma def nekk su dul noonu kon saa yi may def dara rek day doon loo xamante ne day méngoog euh, jamono mais euh, état bi moom boo xool mbalax maan yeeg rappeurs yi la gën a reconnaître am na ko mos a toogal euh, kilifa la sax ci réew mi mënu yéen boo gisee boo leen déposé seen boo leen déposé lettre pour aide duñ leen duñ leen jox parce que yéen des fois da nga ñuy classe ba mu ëpp maanaam comme nan mooy des fois da ngeen wax euh, maanaam secret yoo xam ne waroo lañ ko wax di jouer rôle yoo xam ne waroo lañ ko def mais mais mais ñu dañuy yeete ñun am nañ droit jouer que nii boo fi jaaree lu baax la boo jaaree fi baaxul ñun bon exemple la ñuy wane man nag su ma demee ba théâtre bi may def yeetewul diglewul bàyyi naa ko ba ñàkk sax ba comité sax du ma du ma ci liggéey man boo xoolee ci boo boo duggee ci net bi série yi ma jot a liggéey yëpp yëpp yi ma jot def yëpp damay yeete damay yeete aussi tam ci noo affaire noble lépp lu ma gars yi di jëlee lu ma la ay joxe asaka wala nga yor benn chauffeur jaaytaar affaire yooyu ci loolu lañ may jëlee ko ñu bëri dañu am yow affaire jaaytaar ngay gérer affaire ñeene mais non du loolu producteur da lay woo ne la gérer ma nangam léegi loolu mu lay géeloo ci loolu ngay sukkandiku pour def li nga bëgg mais état moom su ma la waxee dëgg rek moom ah, franchement moom euh, gisuguma lu mu dafa artiste mm-hmm. gisuguma ko dëgg yàlla état bi ñu ngi lay dégg xëy na dinañ jël exemple ci li nga wax euh, mais tamit euh, man damaa jàpp ne parfois nekkul ci état bi est-ce que du nekkul seen doyadi moom moo tax duñ leen dimbale. waaw non mais nag am ñoo xam ne ñu ngi roccee ko dem ñu mm-hmm. ñoo xam ne ñu ngi roccee ko nànk ñu dem ci bureau yi ba ci palais ah. ñu mm-hmm. leen dimbali parce que Marème Faye Sall am ñu fi woo yàggul dara. Mm-hmm. may leen xaalis yu bëri. man nag euh, du Sall tam defe naa recevoir woon na comédiens yi. ñu bëri ñu si bëri mais après dañuy dem dem ci turu niveau Arcos banlieue astafurlah day dem ci ci Arcos. léegi nag bu ñu demee jox leen leen jox après Arcos du xam nu mu demee parce que boo gisee éducation ni baaxul nit ki du dem ak nit du dem ak intérêt personnel. da dem si intérêt boo xamante dem dem du ñu sa taxaw wax. mais képp ko gis mu taxaw ci télé bi di kaas naan état bi dimbaliwuñu. kooku mosul dem si état. man nag du ma xiif mukk ba ne dama jàppale si nangam dina am sama projet nag bind ko teg di xaar sama euh, ñi nga xamanteni war nañ ma ci mëna soutenir ma and ci ak ñom ñu liggéey mm-hmm. mais pas xaar état mm-hmm. pas diko xaar ci yenn mais ñun sax ju day dem ak suñu propre moyen mais artiste yi dem ba palé mm-hmm. wala soit di dem ci yenn bureau yi di feug di ñaan nimbal ñooñu ñi ngi yàq daru artiste gis nga liggéey bo ne ba ci liggéey di ñaan ku la dimbal ni ma dimbal ni ma dimbali kon bobu liggéey bàyyi ko tek fele dem nek ci jelen ni da ngay diñ ci côté bi parce que tamit ci ngay ñaan chaque jour mom mo la ay bëtam fu ko neex ngay xool hmm? ki lay jox ngay lek tamit chaque jour lu ko neex ngay wax lu ko neex ngay wax ah man moom dunduma ci yooyu quoi. ok monsieur Thiam euh, dañ lay daal di bàyyi rek nga wax ñu say projet lan la parce que tamit yaakaar naa say fans namm nañ ko war nañ xam tamit euh, monsieur Thiam ci lan mooy nekk ay projet bi. waaw samay projet mooy bi ci njëkk mooy euh, war nañoo dem benn am na benn kii bi ma woon quoi. booy xool tamit formation la tamit war na fa defaale ay quelques ateliers sama benn grand moom ko lu mu expliqué. Mhm. ñu ngi war a dem tout tout la quoi. turu dëkk bi laay fàtte moom moom loolu laay échappé moom échappé nii quoi. foofu xam naa ni euh, ci janvier bi la waxoon la ñuy dem ci janvier bi la ñu waxoon la ñuy dem quoi. foofu tamit bokk na samay projet yoo xamante ne si bëggoon faa dem pour sama xam-xam bu yeesoo loolu tamit maa ngi ñoom liggéey euh, Père ci ay maanaam wàllu technique gu théâtre ak wàllu rôle metteur en scène maa ngi ci liggéey ak moom. Mm-hmm. sa projet projet yoo xamante ne si teg naa ko euh, bëri na parce que ñun fii dañuy def. dañuy liggéey sama benn xarit bi ñu wax bàcc petaw maa ngi koy nuyu ñu ngi liggéey ci ñoom ci wàllu social dimbali daara yi chaque jour dañuy dem ci école yi def ay spectacle xale yi bu ñu defee entrée day indaale ay yére léegi yére yooyu la ñuy yóbbu suñu Abdou Karim Mbàkke ñu jox ko ko mu tasaare ko ci daara yi xaalis bu ci jot am dañ la da lañ koy jox bu solool tamit maa ngi préparé sama benn festival boo xamante ne si euh, ñu ngi ci di ci dox quoi mais festival bi li ko jiitu mooy sama cassette bi nga xamante ne ko war a génnee defaale benn 72 heures placement waale sama produit bi. loolu tamit bokk na ci samay projet di nuyu tamit euh, sama mbokku artistes yëpp. di leen xamal ne chaque jour rek ñun bu ñu doonee benn rek ku nekk yéene sa moroom jàmm ñun dañuy dem. parce que tamit mënuñu wax dañuy yeete pare di war di wane loo xamante ni si naayisul. chaque jour damay toog naan Leyti Fall Leyti Fall waxuma ko ngir dama koo bëgg. wala soit dafa nekk président Arcos moo tax ma koy wax mais moom képp ku ci moom doo juum ndax saa def day jiital kàddoom bu jiitalee kàddoom ba pare ay jëfum ngay door gis que chaque jour dañuy wax ni sa kàddu ak sa jëf bu ñu méngoowee rek aussi tamit euh, foofu day baax après mais boo wexee jëm nii ñu gis li ngay jëf dem ne dañaan kii euh, dëggawul milieu bi nag metti na trop milieu art bi metti na trop trop trop trop dara gën a metti nga def sa film def sa xaalis yu bëri fay duplication fay lépp ñeneen dem tourné ko toog di la xool lekk xaalis bi tourné naa fa sama premier cassette ak quelques artistes man doog sama xaalis moo ci nekk billahi wala lazim ñi jaay ñëpp xaaj bi yëpp ku ci ñëw da nga téye sa xaalis ñii 10 kaset ñii 15 ñii 20 kaset boobu lekk ma ci 1 franc ba jusqu'à présent nii mais dama mais def ma ko woon pour am am xaalis parce que toog naa scénario bi nekk sama xel ma ne lii il faut lekk naa ko def yàlla dogal tamit ma def ko mu réussir gars yi commencé ko jaay ku nekk ku jaay rek téye nga xaalis ku ma laaj nga ne ma sama wàll lekk naa ko te alors que bi may tourné laajuma kenn cotisation laajuma kenn dara lépp maa dem ak sama propre moyen tourné ko fay sama lépp ban duplication lépp lépp lépp mujj dama mer sax après estambaay troupe bi bàyyi noonu ci laa defaat sama yeneen ñaari kaset yoo xamante ne si benn bi pare na mais beneen moom euh, pareegut mais incha allah daal xam naa ni daal yàggatul dara kaset yi dina génn ñi mën a mën ci taribu chemise tamit dinañ ma gis waaw monsieur Thiam dama bëgg tamit nga indi ma tuuti leeral ci njëriñu ARCO parce que dama gis ne ARCOS euh, région yëpp yaakaar naa am ngeen fa siège Euh, ban njëriñ ngeen di jëlé ci arko ba tax ngeen fay dem tout temps euh ba xam apporter na leen dara ci seen euh, dundu bi nga xamne mom ngeen di dundu muy milieu art bi mm-hmm. waaw Arcos mom boy xol ñun par ni lañ fay dajé daje leen di dañ dem Arcos 16h ba 20h wala wala 18h 16h ba 20h astafurlah wala 21h Arcos nak njëriñ bi baax trop mm-hmm. ndax en tant que rek nga doon ben artiste ko comédien yor carte alcool rek am na njëriñ ndax man ñu bari ñu bari guddigi ni bu ñu dajeg police wala ñu ramasse leen bu ne ay artistes lañ dañaa leen la moo la ñu mañ yéen ay artistes ngeen bu ñu génnee seen carte membre seen carte membre arcola la ñu bàyyi du na laaj pièce d'identité comme mun naa na suñu benn dafa jóge woon xaw ma fan bi ñu bisee ay deux wàccee ñëpp bu ñu wàccee ñëpp ñu ne ko an sa pièce mu ne man sama pièce indaalum dama demoon tournage bay door la ñu ne ko la moo la moo ñu koy wan mais bi mu génnee carte carte membre la koy wane dañ ko ne yéegaatal mais ñi seetu ñëpp dañ leen jàppoon kon foofu benn foofu foofu amoon na ko fa njëriñ bi ñu topp mooy Arcos ñu defaa fois ñu dem kastin am ñu ne ko Arcos Malien parce que bëri na série yi ngi bi du ma tudd ay tur mais ñu su bëri ay produit alcool ñu su bëree bëri bëri des fois ñu ñëw ku ci mën a père Seyba dafay ñëw ndéem si yàlla si père Mamadou Diop yaan ko yàlla yem dafay ñëw ay ñoom soppe euh, grand Makodou yaan ko yàlla yem te yoxuñ moom daan fa ñëw ndaanañu bëri nañu fa ñëw des fois dañu jox seen xam-xam ñu koy séddoo ak moom ku ci mën a Mamour Thioune bu Tëngéej genre yëpp dañu fay ñëw ñuy liggéey ak ñoom kon fu naa ne foofu kon njëriñ am na fa aussi tamit bu dul dara tamit am na fa xamante boo xamante ne si mucc na ay laal man boo xool sama ngénte moo koy def waa Arco banlieue ñoo gérer lépp ñoo gérer lépp lépp lépp ku am xew moo xam na naqar la wala bànneex dañ lay taxaw ba mu jeex takk takk takk mën naa Arco daal famille la quoi famille fu nekk nag du teye des fois ay xiiroo dina am tuuti mais ñu ar ko banlieue ku ñu suñu président moo am fulla suñu président moo am fulla bi mu toogee ba ba nga xamante ni si war mu woote bureau bi na lay def AG bureau bi bañ mu woo ñëpp ne leen dañuy def AG ngeen xool ku leen doy ci président ngeen falaat ko gars yi bañ na ko def AG mu ne AG falaat mu leer na kon kooku ci dëgg lay te lu jaay nit te ñu su bëri mi ngi des fois mu yóbbu 15 personnes Italie ñu dem defi benn tournée ñëwaat des fois 4 des fois 5 moom dañ naan ko léegi del yóbbu ñaar wala ñett ndax chaque jour 3 bi du nangu ay 10 15 jëm kaw yooyu mais moom nag saa bu yóbbu rek dafa yóbbu ñu bëri moom lay defal loolu moom wax dëgg yàlla liggéey na ni Arcos dafa baax ci artiste mu bokk ci Arcos am membre am. waaw mooy yoon. daf koy apporter dara daal. lu bëree bëri parce que am na ñoo xam ne day dem euh, ambassade. Mhm. war a voyager. war a am a am benn tournage wala soit lu ñu war a tourner foofu wala spectacle affaire yooyu quoi mais bu ñu demee ambassade danañ laaj. Mhm. la moo ñu wane yéen ay ay artistes comédiens lañ il faut ngeen seen carte mais bu indi carte Arcos bi duñ ko mën a am. Mhm. am na ñoo xam ne dañoo ñëw ne Arcos banlieue fekk boobu dañoo dem ambassade ñu xamal leen ni yéen mënoo leen dem parce que li li ñu wax ni yéen ay artistes yéen gisuñu ko bi ñuy arko Pikine dañoo ñëw laaj foofu ñu ñu leen jaay ñu leen jaay carte bi liggante ba dem nag ba foofu après dañoo woo suñu président laaj ko mu leeral loolu kon arko nekk ci dafa baax dafa baax mun na la jàppale ci lu man booy xool produit yi ma def yëpp yëpp à part Abou Bilal yëpp arko lañ ma sélectionné yóbbu mais arko si gis nga ne mi ngi dox daal waa mi ngi dox mi ngi dox bu baax mi ngi dox bu baax mi ngi dox ñu wax dëgg yàlla bu amoon juróomi président arco-banlieue yu mën na layti président yëpp baax nag mais bu amoon juróomi président yu mën na layti day gën a baax parce que layti journée mondiale du théâtre saa bu amee lu ma ëpp na vingt ans yoo xam ne da koy célébrer ñun dañu daa woo ñu joué pare mu fay ñu mu fay ñu kase xaalis boppam léegi lu mu am ci théâtre lu koy def fañee passé dafa jënd benn oto oto boobu da koo denc mu ne gars yi na ko oto bi da nga ko yóbbu muy daw ay course mais moom dane non artiste ko ba ñëwee la fi nekkal ku si am xew ak saa boo loo ko mënti soxlaa oto baa ngi jël nga yóbbu lu ma ci kalandoo mukk ko moom mhm. mu doon ku diñ nag mu doon ku baax ku ñuy jàppale bu baax ci milieu bi ok euh, monsieur Thiam bëgg naa tamit nga ñëw tuuti ci sa relation ak sa famille parce que ku ne xam na ne millier art bi dafa metti mhm. parfois nga dem tournée guddee ñëw euh, te ku ne xam na ne euh, da nga fiy bàyyi sa soxna te tamit dañuy gis ne yow sa rôle yu ci bari affaire jaay taar nga ci incarné <laughs> ba xam yow loolu ngay dund réellement wala dundoo ko ak sa fa sa sa jabar naka lay gisee loolu ndax parfois tey jii tamit sa fans yi am nga ay fans yoo xam ne ñu jigéen lañ. Mhm. Euh, te ku ne xam ne jigéen ak ay caprice am parfois nga toog euh, ba ay guddi tëdd ak sa soxna wala dara. ñu mhm. woo la téléphone wala ñu envoyé la message. Mhm. ba xam sa soxna moom comprendre na la ci loolu wala déet. waaw sama fay moom dëgg yàlla ñëpp jàpp na ma ci aar may def bi ma door commencé nag. am na ci ñenn ñoo xamante ne si xaw na ma def mais bi ñu demee ba commencé maa gis may génn après jàppal nañ ma ñu jàpp ma ko parce que sénégalais yu bëri ñoom boo dee génn des fois da des fois bu gëjee génn tele naan la yow xanaa siiwatoo mais dafa fekk yaa ngi génn rek après euh, jigéen ju baax la mais bu njëkkoon sama mosaan solo ba bay dem arko nii naam alaaji foo jëm ma ko damay defi aar arko laa jëm après karam gi xaw a changé mais man saa yi ma xamee man saa yi ma solo ba yëg ni solo naa dëgg dëgg dëgg ci moom laa koy xamee su ma solo dëgg ba war a génn naam alaaji foo jëm la may wax ma xam ne ko man mii solo naa léegi nag su ma génnee dama demee ba ñëw ma gis après les fois dina changé kanam mais dem na ba xam sama jikko da nga xamante ci fula dox ci fula laay du ñàkk nag des fois nga am fan si jigéen yoo xamante ne si day doon sa xarit parce que dañ lay bëgg ah, ah, selon que li nga li ngay joué quoi mais xamul woon bu njëkkoon bu mosaan génn bu dem tournage day mer am yoo xamante ne si du ma ko wax na ma déggu mais dama xam ne kii mer na mais bi mu demee ba commencé gis preuve fa ñëw ay ay maire di fa ñëw di wax sama jikko ba ci ay safal ay safal maa ngi moom doomam bu jigéen bi mu koy may man la ko nijaay de te arko rek lañ xamale ak yeneen ñeneen ak ñeneen yeneen yoo xamante ni maa ngi koy am biir arkos ku ci a soppee des fois day taal ma léegi des fois day taal oto ba man que xëy na am na nu ma mel ba tax ñoom ñu taal seen oto ñooy di ma seet si di waxtaan ak man ci soppe woon na ma benn tournage ma ko su ma dem damay sol damay sol lu baax dina sama oto su ma àggee damay gaare tourné ci fula ñibbisiwaat musuma woo benn producteur na ko jël ma musuma woo kenn kenn na ko jël ma bu mu bokk si produit dafa rex ma ma temps damaa maa ngi jot. kon rôle jaaytaar lay jox nekkoo loolu mbubb booy sol la rek di ci jeu wala. waaw non personnage xam ma koy dégg nag dama daa ñëw arcos ma su ma dem solo ba nice su ma àggee fekkee ay atelier moo am ma simeeku wàcc ci terrain bi di yëg plateau bu atelier amul nag ma toog répété li ma bëgg dafa ma ñu gaay naa ma yow est-ce la fi indi yow jaaytaar nga nangam nangam mais loolu parce que sana scénariste bi moom wala producteur bi dafa dañoo xool ci casting mu gis yow selon li nga sol li nga sol rek mën na la cee jël wala soit nga romb nuyoo wala nga romb dox casting boobu mën na la cee jël mais ñu bëri jàpp ne jaay daar la affaire yooyu mais du noonu sama soxna moom ay temps dund bi xawoon na métti quoi parce que comprendre woon mhm. nit doo ñëw tey rek xam ko tey mhm. mënut a nekk mhm. maag moom génnuñu ma xëy rek ñu ne ma kii ngay takk mën a waaw d'accord ñu may ma ko kon kooku bu ñëwee pour du tëb xam la mais après rek au fur et à mesure ñu gëna dem da na kat ah alaaj caam mi kat lama ma du fofu quoi mais jigen ju bax la sama famille tamit jappal nañ ma sama def daf may ñaanal samay xarit tamit ay temps nanguñu woon dama doon xam jam bayil ar bi nangam nangam nangam nangam di nuyu tamit wa Pikini production Aliou Ndiaye ma ngi nuyu di nuyu Ndeye Awa di nuyu ñom Serigne Dione ñom major ma ngi lay nuyu di nuyu ñepp yu nek euh, Pikini production di nuyu tamit sama xarit sama Serigne sama wasirat El Lo ndax mom moo euh, maanaam loo gi loo gi loo gi mu sant man moo ma neex ci moom ndax sama sëriñ sëriñ xaadim loo tudd sëriñ xaadim loo moom sëriñ Moustapha loo moom sëriñ Ndam Abdourahmane loo ndax jëmm jooju hélas loo ma daf dëkk sam-sam tilikaro li mu def ci aar dafa bëri waa sam-sam dañu ko war a bu baax a baax a baax li ma sama xol laa ko tibbee chaque jour mi ngi daw ngir aar chaque jour mi ngi daw ngir ay doomu aadama mais nag balaa neex day métti tolof tolof du wees balaa neex day métti booy xool suñu borom ñu fiy dégg ñëpp ñëpp amoon na ay tolof tolof ku ci xool yënti bi fa mu jaar dafa metti suñu maam Serigne Touba ay ñoom Lajoor ñoom Mbaba Jaxumpa maam Alhaji Malick képp ko fi dégg mu am tur rek fa mu jaar metti na trop trop trop trop trop kon nag suñu borom bu la da ngay day metti moom la dem si yàlla si doom wax nongoloo mu ne suñu borom bu dee defar day na ko yàq suñu borom bu dee dimbali bu dee defaral day mel ko yàq mais bu lépp sottee rek day baax te aussi tamit jëmm jooju El Hadj Lo moomu jëmm la si ku naqaree xam la waxam bëriwut mais jëfam bu jëfee nga xam ne góor dëgg moo jëf mhm. moo koy ñaanal yàlla jàppale ko mhm. Elvision bi mu taxawal lebelam bi suñu borom teg ci loxoom mhm. jàpp ko barkel ko buy neex day metti de buy neex du xëy rek neex saa bu xëyee neex da xamal ne après day metti mais nag ay tolof tolofam yàlla na ko yàlla arrêté fii mu jeexee fii tàkk tàkk di ko wax nag waa Arcos banlieue namoon nañ ko El Hadj Lo Arcos namoon nañ la xëy loolu liggéey bi tënk-tënk même bu dee benn un mois leen di jot gisoo ko laaj El Hadj Lo fu mu nekk ni dañu ko gëj a gis mais lépp sant yàlla la lépp loo fa liggéey la boo fa defoon lu bon tamit noonu la ko nit ñi waxee di wax euh, na la yàlla jàppale ak seen équipe technique bi nga xam ne yéen a nekk euh, ànd di liggéey maa ngi leen ni sant bu baax di sant tamit sama frère yi nekk Italie ak ñi nekk Espagne ak Ibou bi nekk Amérique ak ñi ma nekkoon fii di liggéey maa ngi leen sant bu baax di sant sama grand papa Thiam directeur Afrique Paravis di ko sant bu baax a baax bu loolu tamit di sant sama yaay ndax feccum liir bu neexee ndeejaa japp ci mbag ya momay may dima di dima jàppale ci yu bëree bëri saa ma dem tournage may ñu tàkkal sala sama loxo mu ne yaay ñaanal ma mais saa ma ne demal dina bax day bax mais saa ma demee dem dafi tournage sama yaay yeewoogut te bëgguma ko yee ma dem saa yoo xam dem naa rek te ñaanalu ma dina am luma neex mais du neex carrément quoi baraw luma neex deug deug ma dem mu ñaanal ma dem ñu indul ko xewal nako am yaay ma ngi sante ñëpp nag di sante ñëpp di sante euh, média bi ñëpp ñëpp Elas Lo mention spéciale. Mhm. jërëjëf. fofu nga daanelee rek fofu la yëkkati kooku mom moy El Hadj Lo Seri Dieyna la puissance mom moy suñu PDG borom Elvision Media Média dee naa ko bu ñu ba ñeme caméra ñeme micro c'est grâce à mom li nekk si ñun moom moo ci def euh, fofu rek lay daali tagato tàggatoo ñi nga xam dañuy safo Elvision Media di leen wax ne c'est Eva mi ngi woon fii ci Pikine Icotaf dalaloon fi daanaan bu mag bo xamantene muy bokku ci arco banlieue muy Elage Diam euh, ñu ngi leen di jox rendez-vous prochainement rek ak keneen.